mbokk internet la Rebelle International maa ngi leen nuyu leen naan daal leen jàmm Karim Wade tontu na Thierno Alassane Sall si coowal bu ñeel double nationalité bu ñuy laame-laame ne moom Karim Wade bind ci réseaux sociaux yi xamal rek moom moo di mandataire am di mandataire bu coalition Karim 2024 Maguette Sy jot na déposé fi nga xamante rek moom moo di conseil constitutionnel preuve bi wane rek moom Karim Wade renoncé na ci li nga xamante ne moom moo di nationalité française rek li nga xamante ne

ba daal di xamal ne rek li nga xamante ne moom moo di mbir mi mel yëngal ko benn yoon ndaxte li nga xamante moom moo ko ñor jamono ji ñu toll nii mooy li nga xamante ne rek moom moo di élection présidentielle bu février 2024 moom ki nga xamante moom moo di doomu Abdoulaye Wade ñi nga xamante ñoom ñoo di jege ñaale farandooram nekkee ci parti démocratique Sénégal di PDS xamaloon moom moo di ci réew euh, Sénégal ni bi ñu ko daal di fi nga xamante moom moo di ci réew euh, Qatar génnee ko ci li nga xamante moom moo di prison bu mu nekkoon ci guddi daal koy dugal avion yóbbee ko fi nga xamante moom moo di réew Qatar boobu ak léegi nag moom euh, Karim tegul tànkam Sénégal ñuy xarandi nag ne ko waa PDS bëggee moom Karima ñu leen daal di fàttali ne am na benn amaat bi nga xamante ne war na kaa réewum Sénégal ci li nga xamante moom moo di xaalis bi ñu jotoon ne daf ko daal di luubal moom Karima ba taxoon na nag ñu daal di koy jotoon euh, tëj li nga xamante ne moom moo di ci euh, prison bi moom euh, Karim Wade ñuy xaarandi nag li li nga xamante moom moo di tontu bi nga xamante moom moo di Thierno Alassane Sall yeneen candidat yi nga xamante ñoom ñoo daal di yëkkati coowal bu ñelu double nationalité bi nga xamante ñu doon laame laame ne moom Karim yore na ko tey itam jotoon na bindu ci li nga xamante moom moo di liste électorale yi ci li nga xamante moom moo di ci li nga xamante ne moom moo di tuuma yi ñu mel daal di xamal ne rek li nga xamante ne rek moom moo di nationalité bi ñu mel moom renoncé na ci ba tax na nag ki nga xamante ne moom moo di mandataire am di Maguette Sy dem na fi nga xamante ne moom moo di euh, conseil constitutionnel daal di fay déposé preuve euh, euh, ci li nga xamante ne moom moo di nationalité française bi mu doon te na li nga moom moo di nationalité française te bindu itam ci li nga moom moo di ci liste électorale foofee ci France ci li nga xamante moom moo di commune bu Versailles rawatina ci li nga xamante moom moo di bureau numéro fi nga xamante ne la waroon a voté ñu xaaraan ne nag li nga xamante rek moom la conseil constitutionnel dogal jëmale ko rek ci li nga xamante moom moo di dossier bi ñu mel en tout cas dañ leen toppal mbir mi lépp li nga xamante nag jëlee nañ ko ci xibaar dañ del soit fii nii yekkee leen ko incha allah ma leen naan bu leen fàtte daal di abonné ngir jot yeneen xibaar incha allah ma leen jox dig daje yeneen jotaay xibaar